wooteem njiitu réew moom ñun dañu cee fekk parce que nag euh, woote wu ko pour euh, pour boppam pour askan wi la ko defal maanaam set moom képp ku la cay woo mooy ki bëgg te gëm nañ ne président de la république bëgg na réew mi bëgg na Sénégalais yi moo tax mu ne chaque samedi premier samedi du mois nañu def journée nationale set setal suñu gox ñun nag fii ci commune bu Sadio yaakaar naa ne euh, fekkoon nañu ci dañoo gën a dañoo gën a dàbbali maanaam daf ñoo gën a ñaax pour ñu pour ñu gën ci gën gën a dox ci set gën a dox ci setal pour euh, suñu santé pour suñu santé ak njaboot. di jaajëfal vraiment askan wi ak euh, service technique yi ak équipe buy technique yi fi nekk yëpp muy feera muy UCG muy ñun suñuy service technique yu commune bi ak tout la population vraiment ñëpp génn nañ massivement ñëpp ñëw nañ euh, wuy si ci appel bi ñi ngi jaajëfal tout le mone parce que nag lii moom mooy wane ne don de soi gi ñuy woote euh, fii ci Sadio moom euh, ñi ngi koy ñi ngi koy jëfe te ñu ngi leen ci jaajëfal di leen ci sant te di leen ñaax nag que ne warta doon benn jour ci mois bi warta doon tamit benn journée dans la semaine dafa war a doon loo xamante ni lu continuel la luy am tous les jours luy am tout le temps te yaakaar nañu ne loolu mooy loolu mooy am jafewul jafewul parce que nag euh, ñun waa saajo Sadio dañoo gën a bëgg dëkk bi Euh, te loolu nag la ñu wax sénégalais yëpp ku ci nekk da ngaa war a gën a bëgg sa bopp euh, njiit la parce que bu ñu toog rek naan la président wala ñu naan le maire wala qui que ce soit mbir yi dañoo war a dox jëm ca gën ñu gën koo bëggal euh, gën koo bëgg moo tax fii Sadio ñun déjà comme li ma waxoon à l'entame dama de mes propos moo di ne fekkoon nañu ci dañuy continuer nekkaat ci jafewul pour ñu woo leen mën naa ne message bi ñoom déjà jàppoon nañu bis bi mooy premier samedi du mois ñun li ñu def rek moom mooy fàttaliwaat leen ko toute la toute la population génn ñëw euh, ñëw wuyu si ñi ñoom moom dañ leen di jaajëfal parce que nag yaakaar naa ne mbir mi ñoom ñooñu ci sax nag di di ñu ci fàttali di ñu jox ay ay ay ay ay proposition naan ñu bu ngeen ko defee nii mooy gën a baax bu ngeen ko defee nale mooy gën a baax te nag mënoon na leen caa bañ a fekk vraiment ñi ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax le sous-préfet de l'arrondissement de Taïf Moussé Diba avec euh, toute son équipe euh, aux efforts et ak euh, CADL la gendarmerie nationale tout le monde la là te nag nii lañ ko defee woon première journée bi nii lañ ko defee waat bii nii te déjà ñun keroog def nañu benn benn benn petit CLD pour préparer journée bii nii déjà ñi ngi mi ngi wax sax naan déjà dès dès demain wala après deme dina convoquer waat pour ñu préparer waat le 2 wala le 3 le 3 août bii di ñëw parce que boobu la war a doon incha allah kon nag ñi ngi ko ciy jaajëfal di jaajëfal euh, service technique yi nekk ci arrondissement bi ak ci département bi. loolu nag mooy suñ problème majeur suñ problème majeur moom mooy dépôt suñ problème majeur moom mooy lu recycler mbalit mi suñ problème majeur moom mooy ñun fu ñu yóbbu fu ñu war a yóbbu euh, ordures yi parce que euh, fii Sadio wala li ci ëpp bokk ci Sénégal ñun mbalit duñu ko duñu ko éliminer dañu koy déplacer dañ koy jëlee d'un point A yóbbu ko en point B loolu dafa war a dafay war a jeex. fii nii mën naa ne euh, war na mën a am chaque département war na mën a am une usine de transformation ci Sénégal te yaakaar naa ne usine transformation bu ñu ko waroon def fii ci département Mbacké Sadio gii la war a nekk mën naa ne à part Mbacké ak Touba moom mooy la moom mooy la commune la plus vaste moom mooy la commune la plus peuplée te espace ñun ñoo ko am kon nag yoon la la ministre de l' wala boog le ministre de l' environnement ñi ngi ko ci interpellé di ci interpellé sax nag le ministre de l' aménagement parce que mbir mi ku ci nekk ku ci nekk am nga ci am nga ci wàll li may wax daal moom mooy une usine de transformation boo xamante ni mën nañ ci transformer déchets yi di ko réutiliser loolu moom lu ma a nekk la déjà ñun am nañ sax benn projet boo xamante ni ñi ngi en cours ñi ngi koy étudier pour fiaçage pour maanaam di recycler wala boog di euh, trier mbalit mi projet de triage lay doon parce que recyclage ñun yegguñ fa li ñu mën rek mooy askan wi ne leen jël leen plastique bi ngeen beral ma ko jël leen Euh, carton yi ngeen beral moo ko jëleen leen ngeen beral ma ko loolu mën nañ koo inculquer population yi bañ def ko mais kanta am doole yi dem bay loola ñu beral ñu ñu di ko réutiliser waat yeggaguñu fa ci loolu ci lañ interpellé ministre de l'environnement ci lañ interpellé le ministre de l'aménagement territorial assainissement ak ñi nga xamante ni ñoo seq yëf yi même sax nag le président de la république pour fii nii ñu gën a jëmal yëf parce que bale baax na trop set setal baax na trop mais nañu jël mbalit mi ñu xam ëllëg nan lañu koy réutiliser parce que mbalit or la bu ñuy wax naan or mooy ordure or la boo xamante ni ñun xamaguñ valeur kon valeur boobu nañu jéem a fexe ba ñu euh, ñu ñu utiliser ko. sub tey bi liñ fi gis ci Sadio sentiment de contentement lañ fi am mbégte bu rey ndax te du gulet nag ndax yaakaar naa première édition bi tamit Sadio mobilisation bu tey nii wala bu ko ëpp lañ fi gisoon kon nag loolu dañ ci en premier chef di ci félicité. monsieur le maire de la commune de Sadio monsieur Diogomaye Diao remercier féliciter aussi waa FERA ak conseil municipaux yi nekk fii yëpp ci Sadio remercier la population parce que mobilisation bi ñu gis nii xam na ni nit ñi ñoo jógal seen bopp spontanément ñëw jàpp ci liggéey bi ba résultat yi nu am ni tey ñu mën ko am kon nag du ñu def li leen lu dul di leen sant di leen gërëm ci seen mobilisation di ci kontaan trop suñu ñëw fii nag xëy na nit ñi dañ naan dana ñëw pour teewee dana ñëw pour participer ndax directive bi ñu jot ci président de la république mooy ñu ñëw ànd ak population bi defandoo ak ñoom seet seetal bi looloo tax suñu teewaay tey ñu ñëw ànd ak service technique yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bu Taïf yaakaar nañ ni doléance yi bari na bari na lool ci arrondissement bi bari na lool ci commune Sadio ndax tey bu gis ku gis ni ñuy nettoyé matériel bi ñuy nettoyé yëpp matérielu population bi la ñoom ñoo génnee seen matériel amuñu benn appui en matériel te loolu dinañ ci rendre compte kilifa yi pour ñu mën ci def ay jéego ndax matériel bu léger bi donc doyul foog ñu am appui en matériel lourd yi nga xam ni mooy camion yi wala benni pour li doon wax sànq ci wàllu décharge yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu mën a déplacer décharge yi nga xam ñoo wër dëkk bi yëpp def leen ci ay zones yu nga xam ne dinañ fa mën a def projet yi ñu fa bëgg def. appel bi nu mën a lancer pour ñaax nit ñi appel bu yomb la ndax ku nekk bu ko jëlee def ko sa yëfu bopp rek yaakaar naa jaratul ñu lay woo. Mm-hmm. te yaakaar naa président ba muy wax ku ko dégg xam na ni moom loolu la woote citoyenneté nit ñi ñu def ko seen yëfu bopp xam ni set du nit mooy naan nit setal. waaye nit moom mooy setal boppam setal fi mu dëkk pour mën a génn setali feneen loolu nag mooy li nga xam ñu ñëpp war nañ ko intégrer suñu biir xam ni lu nu nettoyé nettoyé baax na waaye ñu bare tilimal moo gën te képp ku nekk bu mu jàpp ni mbir mi mbiru président la wala mbiru sous-préfet wala mbiru maire mais mbiru population bi la mbiru waa askan bi la ndax suñu réew mën a nekk réew bu set ndax set li muy indi dafa bare set mooy tax ñu mën a am wér-gu-yaram ñi ngi jëm ci nawet bu dëkk yi setul taw bi di ñëw yaakaar naa ni feebar yi day gën a bare te loolu nag buñ ci jógul dina indi yàqute yu bari ci wér yaram bi dina indi yàqute yu bari ci dëkk bi looloo tax daal li ñuy ñaax population bi mooy mu nekk lu nga xam ni chaque jour la bu nu xaar président di woote chaque samedi ñu koy def bés bu ñu yeewoo nan jàpp ni bésu setal la loolu mooy euh, appel bi ñu doon lancé population wu Sadio ak waa bi yëpp